allahuma salli ala sayidina muhammadin adada ma fi ilmi illahi salaatan daaimatan bi dawaami mulkillaahi julli gu bari nga ne ko def bis bu ne loo waaye bu dee bisub ajjuma nag wala guddi gi ko ci dee def junne yoon yàlla dana la may texeg àdduna ak texeg àllaaxira